asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñoo ngi sant yàlla subhaanahu wa taala di julli ci yonente boobu wa sallam di nuyu mbokk yi muy waa M-Media Group Nuuru Daarayni ñoo leen di nuyu di leen dokkeel bu baax a baax ci weer wu tedd bi nekk di leen baal xaq di ñaan ngeen baal ñu àq di ñaan yàlla subhanahu wa taala mu nungul ñu suñu jaamu yàlla te jéggal ñu suñu rëcc rëcc bi jaay seydina muhammad sallallahu alayhi wa te liggéey bu sell bi ñu yàlla baaxee mu jàppale ñu ci ba defal ñu ci lu kawe suñu njort bi jaay seydina muhammad sallallahu alayhi wa xam naa dañuy jël nuyoo bi rek teg ko ci loxol kilifa gi sunu jëwriñ sunu sëriñ Cheikh Abdoul Ahad Mbacké su ko defee mu jot li ko mbokk yépp rek mbokk taalibe yépp ak euh, soxna yu baax yi nekk ci biir group bi euh, di ko delloo ziyaare bu baax a baax di ko ndokkeel bu baax a baax itam ci taxawaayam ak euh, yittewoom liggéeyal xaadimu rasul kon ñoo ngi koy ñaanal Mbàkke lépp lu mu bëgg a liggéeyal maam xaadim rasul rek yàlla na ko yàlla may lu koy njortam te ñu ànd ko ak moom bi jaay Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa kon tey dañuy delluwaat si ci liggéey bi rek di saa yore mbokk yépp nag bàyyiwuñu kenn góor ak jigéen ñépp di ñëwaat ci jataay bi nga xam ne bii moom lañ ñu cërale ci biir liggéey bi te ñu di ko tuddee al fatwa te mooy ñuy tàbbal ay laaj ci biir groupe bi ñu euh, ci jéem a góorlu di ci jéem a tontu loolu itam ni ñaan yàlla rek mu doole na ci jàppale bu baax a baax ndax lu ama am solo la ci liggéey bi ndax mën naa am ña koy laaj ñi ñu koy ñoo ko gën a xam man mii ñu koy laaj waaye nag bëgg dimbali mbooloo mi ak bëgg a yokk xam-xam bi ak bëgg koo tasaare dina tax laaj yu ci bare bare dañuy xam ne moom kii da koo laaj rek waaye boppam sax nag daanaka taxul mu koy laaj waaye loolu lu ama ama solo la yal nañ ci yàlla doole jàppale bu baax a baax su ko defee laaj bi nga xam ne bii moom lañ fi jëkk am ci semaine bii tey muy jógete ci soxna si muy soxna ci banjaay ñoo ngi koy siyaar bu baax a baax a baax di ko ndokkeel moom itamitam di ko ñaan mu baal ñu àq baal nañ ko àq ci koor gi ñoo ngi koy siyaar bu baax a baax a baax moom itam yàlla jàmbaar saa su ne mi ngi tàbbal ay laaj yu am solo yoo xam ne yi wax dëgg ñun ñëpp dañ ciy mën a jariñu ndax dañ ciy yokkoo bu baax a baax a baax kon soxna si tey laajam bu njëkk mi ngi laaj muy dafay laaj ne maa hiya mufsidaatu mi li nga xam lii mooy yàq koor moom lay laaj loolu itam dañ ko ci wax ne ko lii yàq koor de mën nañ ci teg juróom yoo xam ne yi moom bu ci waay def rek kooram day daal yàqu waaye tamit mën nañ ci am yeneen yoo xam ne it euh, doonte yàqut koor ga kiy woor moom da ko war a moytu waaye lii ma lay wax nii moom mooy al aklu wa shurbu wal jimaau nahaaran wa taamudul xay wa rafaul niyati wa taxalli anha juróom yi daal lañ ne moom lu ci waay def ci bëccëga weeru koor wi te bi mu koy def moom moo ko tey su boobaa nga xam ne kooram yàqu na mooy kii woor ba ci bëccëg mu dem lekk wala mu dem naanam ndax wala lu mu mën a naan wala mu ànd ak soxnaam ci bëccëgu weeru koor gi walla mu tey am wàccu maanaam dem fexe ba luuju ba wàccu maanaam su wàccoo tey ko rek moom tamit day bokk ci liy yàq koor gi waaye tamit ki nga xam ne kii mi ngi woor ba ci yàgg si mu ne man daal sama yéene koor ji ma yéene woon dindi naa ko maanaam yéeneetuma woor bu ko defee su boobaa kooram ngi day yàqu waaye tamit bokk na ca loo xam ne lii bu yàqut koor maanaam mën naa wàññi koor ga mën naa wàññi yool ba ca jullit bay am muy euh, wax ju baaxut wax joo xam ne jii dañ la ko tere woon Euh, ak def loo xam ne ni dañ la ko tere woon ci lépp lu mu mën a doon rek maanaam ne ne loolu itam danga ko war a bàyyi ndax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam danoon man lam yadaa xawla zuuri wal amala bihi fa laysa lillahi xaajatun yi an yadaa taamahu wa sharabahu yonente bi danoon képp koo xam ne kii booy woor mënoo bàyyi wax ju bon mënoo bàyyi jëf ju bon ne ne yàlla soxlawul ngay bàyyi sa lekk ga ak sa naan ga kon eh, yi nga xam ni moom lañ lim ne moom day yàq koor dañ ko war a moytu waaye itam dana war a góorgóorlu ba bu ñu waree lépp lu ñu warta wax duñ ko wax lu ñu warta defit duñ ko def fu warta demit duñ fa dem wallaahu alam beneen ñaareelu laajam bi itam muy soxna cubba ne day laaj maa yafaluhu baadu naasi baada salaati ka masil katifi wa tax ala al ardi wa massi baatinil xadamayni ila axirihi ila axirihi dana dafa seetlu ne ne nit ñi daal bu ñuy julli suñu jullee ba sëlmal daal dañuy def yu baree bari yoo xam ne yi daal moom xam naa ne ne jaaxal na ko muy laaj ba xam loolu moom lu bokk ci julli gi la wala lu ca bokkut muy lu mel ni su dafay gis ñoo xam ne buñ jullee ba pare dañuy am lu ñuy wax di tuflu ci seeni loxo di ko raay ci seeni mbagg am ñoo xam ne ñii dañuy rëdd ci suuf mel ni dañuy bind waaye itam am na ñoo xam ne ñii bu ñuy jullee ba noppee am na lu ñuy wax loo xam ne dañ koy wax ba pare tuflu ci seeni loxo daal di ko def ci seen biir ndëgguy tànk ak yu baree bari yoo xam ne da nga ne seetlu na ko ñu koy def ci biir ak julli wala buñ jullee ba pare bokk muy laaj ndax moom loolu moom lu war a def la muy lu araam la la wax wala boog lu dagan la su ko defee ñu ne ko xam naa mën naa am du doon lu araam ndax mën naa am xam naa lañ cay jublu lu baax la xañ na lu mel ni ay musuluwaay lañ cay jublu ak ak ñaan waaye nag am na ci yu baree bari daal yoo xam ne yii ñu ngi koy def bu ñu jullee ba pare yoo xam ne yii daanaka xam naa mën naa ñàkk ndax euh, julli moom soo jullee ba pare la nga xam na lii moo gën dal nga def albaaqiyaatu saalihaat maanaam albaaqiyaatu saalihaat maanaam ba fekkee ni yow man nga ko saa boo sëlmalee nga jàng ayatul kursi yi boo ko mënee jàng laxad jaakum jàng inna anzalnahu fi laylatil qadr ba mu jeex yooyu ne nañ sopp nañu gën nañu képp koo xam ne kii sëlmale nga ci sa julli euh, nga def ko waaye tamit albaaqiyaatu saalihaatu jooju ñuy wax moom itam ne nañ sopp nañu ku julli ba pare maanaam nga def ko ndax ay ñaan yu baax a baax la lu am am solo la ci nit ki muy dëppook aaya bi yàlla wax ne almaalu wal banuuna ziinatul xayaati dunia wal baaqiyaatu saalihaatu xayrun inda rabbika wax wa xayrun amalan yàlla dafay wax ne euh, alal ji ngeen di dajale ak doom yi nga xam ne da ngeen koy bëgg di ko sàkku ne ne taarat ko àdduna gii la dong nag fi la yem waaye ne ne al baaqiyaatu saalihaat ya nga xam ne yi nag dafa des te doon yoo xam ne yu baax la yu baax yoo xam ne day des faw doon aw yiw ne ne loolu moom moo gën boo demee fa sa boroom fekk ko fa mu doon ab yool bu rëy rëy waaye tamit moo gën lépp loo xam lii doomu aadama maanaam doo koy mébét fii ci àdduna si nga xam ne si ci lañ nekk su ko defee albaaxiyaatu saalihaat yooyu nag mooy al amaalu saalihaatu wa bi xaasatin al tasbiixu wa taxmiidu wa takbiiru wa tahliilu afdalu ajran inda rabbika min al maali walbaniina fa yanaalu biha al abdu fi l axirati maa kaana yamaluhu fi dunia nee na daal soo jullee ba pare boo mën mënee def albaaxiyaatu saalihaat ne ne mooy jëpp jëf joo xam ne ji ju baax la mooy loo mën a wax ci alquranul karim loo mën a wax ci yi nga xam ni moom la sayyidina Muhammad doon wax ginnaaw bu jullee ba pare ak bu julliwut muy ay wàllu ay ñaan ne ne albaaxiyaatu saalihaat ya ca gën a ràññeeku mooy ak tasbix mooy boo jullee ba pare nga wax subhaanallahi fanweeri yoon ak ñett wa taxmidu soo paree wax alhamdulillahi fanweer ak ñett soo paree wax allahu akbar fanweeri yoon ak ñett mottulee lim boobu nga xam ne day daal di nekk juróom-ñeent fukk ak juróom-ñeent nga mottulee ko laa ilaha illallahu wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli shay'in qadirun ne ne li daal soo jullee ba pare nga def ko ne ne mooy yool bu rëy rëy boo xam ne bii yàlla dina la ko ca defal yoo xam ne ji boo demee ba mu ko fay moom yàlla eh, lépp loo xam ne li yaa ngi ko doon mébét fii ci àdduna muy doon say bëgg-bëgg yàlla dina la ko ca maye foofee ca àllaaxira kon yeneen yi nga xam ne dañ koy def ginnaaw julli daal war nañoo góorlu ba yu baree bari nag moom ñu di ko moytu ndax di rëdd ci suuf ak rëdd di wërale sa bopp ak yooyu yëpp am na ci bari yoo xam ne daal wax dëgg yàlla xam na euh, mën naa ñàkk ci julli ga daal bu ko defee albaaxiyaatu ji daal ñu gën ko jàppaat bu baax a baax bu defee moom dafa am solo lool ci nga xam ne julli na ma pare bu jullee ba noppi mu teg ko ci ak julleem ak yeneen yépp ñaan yoo xam ne yu baax rek ndax ñaan moom ni ñu koy waxee rek mooy nga tàllal say loxo soo ñaanee ba pare daanaka jarul ngay tefali sax waaye mën nga ëf rek ci say loxo raay ci sa jë bu la neexee waaye yeneen yi ci des yëpp daal xam naa moom xañ na ñu ci baree bare ñu ngi ko def waaye ak ñàkk xam lay doon ak ñàkk jàng diine ci daal comme nañ ko war a jàng dëgg dëgg dëgg waaw walla waaw kon yal nañu yàlla jàppale foofu bu baax a baax ba ñu am ci ak ràññee yeneen laaj yi ci topp Pape Babacar Ñing moo koy laaj moom itam noo koy ziar bu baax a baax waaye di ko ndokkeel moom itam di ko baal xaq di ñaan mu baal nu àq moom liggéey bu baax a baax di ci dugal ay laaj yu am solo yoo xam ni dañ ci yokkoo bu baax a baax tey moom li muy laaj mooy ismu waaliday Seydina Muusa alayhi salaam day laaj ñaari waajur yi Seydina Muusa ku ci nekk nan nga tudd maanaam waajuram bu góor wow Seydina Muusa nan la tudd waajur bu jigéen wow Seydina Muusa noonu la tudd su ko defee foofu moom liñ ci tollu fiñ ci toll ci liñ ci xam ci suñu gëstu ci ci histoire yi ñu jàng ak jaar-jaar yi ñooñu noonu mooy Eh, imraan lañ ne mooy baayam maanaam turu waajuram bu góor mooy imraan mooy turu waajuram bu góor te turu wii nag ni ñu ko gëstoo ak ni ñu ko jànge mooy haza mattafaqa alayhi al tur yi moom boroom xam yi ñu baree bari ñi ëpp ci ñoom daal nañ ne waajuru Muusa wu góor wa daal Imraan la tudd ismu walidatihi yukkaa bidu bu dee euh, waajur wu jigéen wala itam la ca boroom xam-xamee wax nga xam ne ña ci ëpp ca lañu d'accord mooy waajuram wu jigéen mi ngi tudd yukkaa bidu nee nag wa hadha al ismu huwa al ismu al asharu fi kutubi taarix ne bu ñuy jàng téere yi nga xam ne dañuy waxal ci histoire daal ne ne du ji nga xam ne nañ mooy turu yaayu Muusa daal moo gën a siiw ci téere histoire yi ndaxte dafa am ñeneen ñoo xam ne dañ ne turu yaay ja ma nga nekk Yuxaaniz nga xam ne ñoom dañ ne yaay ja Yuxaaniz la tudd bintu Yashar waaye daal yukaabidu jee daal nga xam ne eh, moo gën a siiw ci téere histoire yi daal moom lañ gën a jàpp ne xañ na noonu mooy tur wax muy laajaat itam hal li Muusa ixwaanun mu ne ndax Seyduna Muusa am na ay mbokk yu mu bokkal ndey ak baay loolu it lañ ko cay tontu mooy waawaaw naam fa inna Seydina Haaruna axun li Seydina Muusa min abihi wa ummihi fa huwa shaqiiquhu wa lahuma uxtun ismuha maryamu bintu imrana wa yukaabit Seydina Muusa am na mag di ñuy wax Haaruna Haaruna mag yi Seydina Muusa la joo xam ne jii ñoo bokk ndey ak baay maanaam la lay wax axuhum yi abihi wa ummihi waaye itam am nañu ak jigéen boo xam ne bii ñoo bokk ndey ak baay itam muy maryamu lañ koy wax bintu imran su ko defee maryamu bintu imran jii ñu wax fii itam day gën a dëgëral tur waajuram weñ góor wañu waxam ne imran la ndax ne ne fii itam soxna soosu mooy ñoom ñëpp muy Seydina Moussa ak Seydina Haruna ak Maryamu mi ñoom ñëpp doomi Imran nañu ak yukaa bidd moom la waxal fee beneen laajam itam muy laaj luxatu Seydina muusa maanaam Moussa ci wan lang la doon wax maanaam doon wax ne ci gën giir ak arab la bokk waaye dañ ko naan inna luxata Moussa kanat al ibriyata wa maa hada kaana yafhamu alarabiyata kama kaana yaarifu luxata alxibtiyata luxata ahli misra wa xaataba bnay imnatay shuayb bil arabiyati li annahum arabun ne ne seydina muusa eh, ci gan giiru arab la ma kon dub arab seydina muusa dub arab waaye langue bi nga xam ne bi maanaam moom la Seydina Moussa doon waxee mooy al ibriyatu la al ibriyatu lañ koy wax terewut it nag Moussa ne ne déggoon na arab waaye tamit déggoon na langue yu nga xam ne mooy langue waa Égypte ya muy alqibtiyatu waaye rek boole na dafa déggoon yeneen làng yu bare bare bare ndax li tax mu ne al ibriyatu mooy aw langam waaye déggoon na arab mooy bi mu demee Madyana te fekk ñaari doomi Seyduna Shuayb bu ya ca teen ba ñoom arab lañ doon wax moom ndax ñoom ay arab lañu te booba amul tarjumaan amul maanaam kenn ku dox seen diggante di leen jottali wax ja euh, Moussa doon wax ak ñoom direct maanaam ñu koy wax arab mu leen di tondu ci arab su ko defee kon daal loolu bu dee langue la daal al ibriyatu lañ ci xam ne mooy aw langam waaye tamit déggal na arab ba bi mu demee Madyana nga xam ne ñoom ay arab lañu ay arab la doon wax ak ñoom waaye tamit dégg na yeneen làng yu baree bare ndax loolu dafa nekkan ci liggéey boo xam ne mu da cee ci liggéey boo xam ne bii musaa da ko doon liggéey mu aajowoo dégg ay làng yu baree bare su ko defee yonente yi nga xam ne ay arab lañu moom lañ koy wax nii ne ko juróom lañu muy wa anbiyaul arabi xamsatun muhammadun hudun ismailu shuaybu saalixu juróomi yonent yi daal lañ ne ñoom ay arab original lañu muy seyduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam ak yonent bi ñuy wax hud ak seyduna ismail ak seyduna shuaybu ak seyduna saalix juróom yi daal moom nañ moom ay arab lañu yoo xam ne yii arabu bu set wicc moom lañ doon wax waaye Seydina Moussa moom nekkutoon ab arab waaye déggan na arab ba daana ca wax yeneen laaj yu ci topp sëñ Mouhamadou juuf moo ko rotal ci biir liggéey bi dañu ci laaj laaj yu am solo moom itam muy euh, lu jëm ci laylatul xadri ak lu jëm ci ak euh, juma ak lu jëm ci euh, alxuraanul karim orma ji ñu ko war a jox mu doon laaj yu am solo yoo xam ne yi wax dëgg yàlla tabarkalla macha allah euh, day laaj moom sëñ muudu sax dañ koy ndokkeel ba pare wax dëgg yàlla moom itam ci taxawaay bu am solo bu ñuy taxaw ci liggéey bi ñoo ko ci sant bu baax a baax di ko ndokkeel di ko ñaanal yàlla moom itam bu gën koo dëgëral bu baax a baax a baax am na ci solo lool lool lool lool su ko defee dafay laaj ne kama xayyada cheikhu laylatal xadri hal katabahu bi ilmihi alxaas aw naqalahu min baadi alulama waxal xayada tullaaba bi ihyaa laylatil qadri hakada mu ne day laaj ne Cheikhul Xadim daa am noo xam ne ni dana tënke laylatul qadr gi ñu wax ci biiru wéeru koor bi Cheikhul Xadim am na calendrier bu ñu wutal boo xam ne bi bopp laylatul qadri la nga xam ne da ko tënk nga xam ne boo ko xamee sëriñ bi dañu caa jàngal wax nu ne bis boo xam ne bii weer wi teru na ko rek man ngaa daal di xam yow sa guddik laylatul xadri kañ lay doon ci semaine bi noonu la ko toppee ba juróom-ñaari fani semaine bi yépp mat mu ne la bés boo xam ne bii weeru koor yu teru na ko na nga xam ne laylatul xadri day nekk nangami fan ca weer wa loolu moom lu mu tënk la loo xam ne lii ñuy jàng yaakaar na ñu baree baree bare xam nañu loolu tënk boobu nag mu ko tënk sëñ bi yàlla da ko cee defal kéemaan gu doy waar muy noonu ko sëriñ bi tënkee ci semaine bi dafa tombeek ne bés bu ci sëñ bi ne rek maanaam guddi gii nu jëm mooy laylatul xadri guddi googee day tombeek mu doon guddik ak juma su ko defee nag lam ca mu ne ndax moom sëñ bi euh, da ko bind ci xam-xam boo xam ne bii yàlla ko xamul maanaam mu jagoo ko daal di koy taalif comme noonu ma ko tënkee walla boog da ko toxale ci eh, boroom xam-xam yi nga xam ne yii ñooy dundal islam bi ci wàllu xam-xam boobu. alhamdulilah ñu koy wax ne ko téere bi nga xam ne bii ci la Cheikhul Xadim tënk layatul xadir googu te defe naa addaayatu sanati lañ koy wax. sëñ Modou defe naa bayit ga nga xam ne gii moom la sëriñ ba jiital foofee laata muy def bayit yi nga xam ne ca la tënk laylatul xadri suñu ko déggee maanaam dafay daal di tënk sa ñaari laaj yépp ndax bu nu déggee bayit gi rek na ko sëñ ba waxe mooy euh, euh, na ko sëñ ba waxe mooy tënk na ci sa ñaari laaj yi muy bayit gi mooy duunaka yaa man laylatal xadri taruum nazman ataa bi ma xaka ëhlu loolu euh, dafa laaj ne ndax sëriñ bi moo ko bindal boppam wala da ko toxale ci boppam ci boroom xam-xam te bayit gi dane duunaka jëlal yaa man taruumu yow miy sàkku laylatal xadri guddig laylatul xadri nazman ma defal la ko ay woy yoo xam ne yii ataa woy yooyu jóge na bi ma xakaa ca la nga xamal yi nettali na ko ahlul mi boroom xam-xam yi daal mu ñu wax biir gi mooy sëriñ bi dane yow mi nga xam ne nii suma taalibe nga wala nu nga woy ci samay ndigal daal Euh, su la neexee na nga jël woy yii may woy mu doon ab tënk boo xam ne bii tënkab laylatul xadri la waaye tënk bii ma ko tënkit maanaam def ko ay woy mu ngi jóge ci li nga xam ne lii ñi am xam-xam maanaam noonu lañ ko nettalee kon defe naa ci wàllu ndax dafa tënk taalibe yépp ci ñu jël tënk boobu di ko dundale laylatul xadri defe naa man nañ ne waaw ndax duuna ko ji a mooy jëlal ji mu wax kon képp ku ko nungul maanaam mën nga jël euh, tënk boobu di ci dundal sa laylatul xadr yi ngir ne moom ndigal la lu jóge ci moom mu digal la ko ndax mooy duuna ko ci mooy jëlal yow mi sàkku laylatul xadr kon ku nangu ndigal rek maanaam yaa ngi ci biir euh, ndigal loolu di ko jëfandikoo te yaakaar naa tënk boobu fii ci Sénégal ak feneen fu murit nekk ci àdduna yaakaar naa laylatul xadr googu moom taalibe murit yi amuñ ci genn wuute saa bu ñëwee ñooy bokk nañ ko defee kon defe naa sëñ bi digal nañu lu tënku ci ndigal loolu waaye dem ñu ngi ko jëfee beneen bi ci des muy man nañ na da ko toxale ci boroom xam-xam yi mooy nazman ata bi ma xaka ëhlu loolu mooy lii sëñ bi wax ne yow mii di sàkku laylatul xadr na jël bëyit yi nga xam ne yii mi ngi jóge ci la nga xam ne lii moom la boroom xam-xam yi nettali jéem nag dane jéem ma ngay jóge ca la nga xam ne lii mooy moom la boroom xam-xam yi nettali kon foofu it dañ fi daal di mën a jàpp ne ah, da koo toxal ci boroom xam yooyu nga xam ne yii ñooy xam ñooy boroom xam nekk ci lislaam bi di ca àtte ak di ca dimbali mbindeef yi kon daal bayit googu daal nañ koo xoolaat bu baax defe naa ku ko jàng boo ko déggee ni ko sëñ bi waxee rek mooy ndigal nañu tënkoo ci di dundale nii laylatul xadr yi bayit gi indi nañu ko waaye tamit bu nu déggee bayit gi ci beneen xaaj bi ci desit mooy woy yooyu ko sëñ bi woy ne da ko jële ca la boroom xam-xam yi àtteewu tamit dina jëmën sukkandiku nekkoon kon da ko toxale ca boroom xam-xam ya su ko defee nag Cheikhul Xadim moom nanu xam ne dafa am yu ko yàlla jagleel yoo xam ne yii ah, defe na jagleelu ko kenn ndax bokk na ci loo xam ne lii yàlla dag koo jagleel sëriñ bi ci boppam moo wax ne aktubu naaxilan min allawxi wa min xalamihi wa fi xurufi lam amin ne moom sëñ bi léeg-léeg su may bind li may bind damay jàkkaarlook lawxul mahfuz di ko ca toxale te lawxul mahfuz mooy àllu ba ja xam ne ji lépp loo xam ne lii yàlla àtte na ko ba dogal ko rek ma nga foofu ca lawxul mahfuz lépp luy am kenn nag yàlla may na ma maqaamam léeg-léeg dañ may ubbi lawxul mahfuz ma cay toxale kooku euh, mën naa am yu mu jagoo yu bare bare yoo xam ne yi du doon lu ñuy toxal waaye tamit dafa waxaat ne xafiztu ma sina an dafatiri fala takun an xidmati bi fatiri sëriñ Bàmba dafa waxaati ni mu ne mokkal naa ci xam-xam yu nëbb yoo xam ne yi ay secret la yoo xam ne yi dafa rëy dafa xóot ba kenn du ko bind ci ay këyit sëriñ Tuubaa ne ne mokkal naa loo xam ne lii kenn du ko bind ci ay këyit ci wàllu xam-xami baatin kon ne ne yow mii doon sama taalibe bul tayal mukk ci di ma liggéeyal kon euh, bu ko defee yu mel noonu mu doon ak jagle woo xam ne gi yàlla dag koo defal ndax sallallahu alayhi wa bi muy dem laylatul israa wal maanaam bi muy dem ci ci yàlla subhanahu wa taala bokk na ci la ko fa yàlla jox moom Seydina Muhammad muy ñetti façon xam-xam ñetti façon xam mooy benn bi mooy jox na ko xam-xam boo xam ne bii doo ko war a xamle mooy sharia mooy ni ñuy jaamoo yàlla da ko war a xamle waaye itam jox na ko boo xam ne bii maanaam da ko bii moom ku neex man nga ko koo xamal waaye da ko jox xam-xam boo xam ne bii da ko ne bul ko xamal kenn te bu ñuy xool xaadimu rasul ak yonente bi sallallahu alayhi defe naa xam-xam yooyu mënoon ko ku neex mën nga ko koo xamal moom yonente bi mën na ko ca xamal loo xam ne lii nag xamalut ko xamalu ko keneen ku dut moom ndax loolu yàllaa ko def seen diggante ñoom ñaar beneen laaj bi ci toppit muy laaj eh, alxuraanul karim jii nuy jàng ban wàcc waaye lañ ko war a jox maanaam nan lañ ko war a ormaale alxuraanul karim day li nu war a jëkk a xam mooy anzalahu llahu manzilatan ulyaa fi ayatin kathiratin minha innahu la quraanun karimun fi kitaabin maknuunin laa yamassuhu illa almutahharuun law anzalna hadha alqur'ana ala jabalin la ra'aytahu xaashi'an mutasaddi'an min xashyati llah waaw ba tey sëñ Moodu muy laaj alquraanul karim mu ne daal dafa seetlu ne eh, am na ñoo xam ne ni daal xam naa joxuñu ko dëgg-dëgg ormaam ndax ne na am na ñoo xam ne nii sax bu ñu dajaloo di ko jàng noonu day gis ñoo xam ne nii bu ñu jàngee seen jukki ba pare sax fa ñu war a dajale eh, jukki ya buñ ko fa waree yóbbu suñ fa jotiwut daanaka dañu koy sànni rek maanaam mu dem noonu ak yeneen yu mel ni ki yooyu rek bu boobaa nag dañuy xam ne loolu moom li mu wax lu wér lu dëggu la lu am la ndax dañuy gis ay nit di ko def waaye loolu. kenn waru koo def alxuraanul karim alxuraanul karim kenn wërta yor jukki bi wala nga yor téere bi di ko xalab di ko sànni noonu waaye danga ko war a ormaal fa nga koy teg nga fexey ba soo fa mënta dem nga jox ñoo koy jokkalante ñu koy jokkalante àgg ca fañ war a teg waaye tamit muy laaj eh, ndax alxuraan mën nañoo teg ci kawam dara déedéet alxuraan dara waru koo féete ko loolu tamit lu ñu war a bàyyi xel la ndax da nga gis ñu baree baree bari suñu yoroon téere bii tey muy alxuraan wala ñu yor ci ab jukki yor leneen maanaam lu mel ni appareil wala lu mel ni kurus wala lu mel ni xasida ñaare li ci ëpp bu ñuy teg yooyu ci benn ci béréb bañ koy teg dañuy gis ne maanaam dañuy jël alxuraan ji jiital ko la ca des ñu daal di koy teg ca alxuraan ja te loolu njuumte gu rëy rëy la alxuraan moom lu mu mën a doon rek maanaam kenn waru koo teg ci koom ndax mooy téere bi nga xam ne bii yàlla dafa wax ci ay wàccuwaayam ne innahu la quraanul karim alxuraan mi ne lu lu sell la lu tedd la nga xam ne dama ko beral mu doon téere boo xam ne bii bu ñu ñoŋal la nga xam ne sax bokk na ci ak ñoŋam ak a wàccuwaayam mooy képp koo xam ne kii àndoo ko ak laa sax maanaam waroo ko laal waaye itam da caa waxet ne alxuraan jii de màgg na rëy na rëyee boo xam ne bii diis na diis goo xam ne gii sell na sell goo xam ne gii man yàlla su ma ko wàcceen ci montagne yi gën a am doole ci kaw suuf montagne yooyu dinañu tas tasaaroo doon pënd ngir ragal yàlla goo xam ne gi dañ koy ragal yàlla ngir doole joo xam ne ci xam nañ ko ci alxuraanul karim gis nga Cheikhul Xadim bi mu bind xasida googu tudd saana ilaahi sëriñ bi da ca wax wax ju doy doy bi ko sëriñ bi bind sëriñ bi dafa wax ne kataballaahu tabaaraka wa taala ann hadihi alxasidata ahabu ilayhi min geyri alqurani walxadis saana ilaahi muy siddoxuhum jooju sëñ tëgg tënk ci juróomi bayit ne na bi mu koy bind Euh, xasida googu dafa rëy rëyaay boo xam ne bii ne na yàlla ci boppam moo bind wax ne xasida ne ko xasida gii ngay bind nii day moom la gën a bëgg ci lu alxuraan ak xadiis kon bu xool loolu jéem yàllaa ko ne lii ngay bind nii mu di xasida gii day moom laa gën a bëgg moom laa sopp ci lu dul alxuraan ak xadiis te xadiis moom nga xam ne nii moom la ne moom la gën a bëgg ak alxuraan sax xaddi sax waree su ko jël teg ko ci kaw alxuraan kon leneen lu mu mën a doon maanaam nit ki amut sañ-sañ jël ko di ko teg ci alxuraanul karim su ko defee alxuraanul karim bokk na ci wàccuwaayam mooy eh, innahu la kitaabun aziz bihi nusixa jamiul kutub bokk na ci màggaayam ak ak wàccuwaayam muy téere yi fi yàlla indiwoon yépp muy doon téere diini yoo xam ne yàlla dañu wax nañ ma ca jaamu téere yooyu yëpp raaf na ba lépp lu ca nekkan ci lu ñuy war a jaamoo yàlla rek léegi alxuraan moo ko yore ci biir alxuraan googu gii bu ko defee Cheikhul Xadim ngir tere ñu ñuy jël dara di ko teg ci alxuraan ci kaw alxuraanu karim dafa wax ne lakkin na jaalahu wisaadatan munia li annahu muharramun muharramun faltattaria bi mu lim ci wàcc waaye alxuraanul karim di wax na nu ko war a jàppe te ku ne xam ne ne moom alxuraanul karim mosu koo yemale dara ndax eh, ay néegam ak yooyu sax nag lal bu fa masa nekk alxuraan la koy jagleel teg ko ca kaw da ca def lat koloñ di ko fomp waaye xalaatu caa teg dara wala muy bokkal alxuraan joojee lal boobee sëriñ bi bi muy wax ne ne eh, am na ñoo xam ne ñi sax xaj na ak ñàkk xam moo leen ci yóbbu wala ñu ñàkk xam ni alxuraanul karim toll na ne mel ni nga jël alxuraanul karim di ko gegenoo dañ koo tere ndaxte nee na loolu araam la kon ne na nga gën a na nga góorgóorlu ba alxuraan jooju bu ko defee nga gën a mukk di ko gegenoo defe loolu moom euh, kenn waru ca àgg maanaam jël alxuraan di tëdd gegenoo ko daa di waxaat ne aw jaali shay'in bi min kutubi ilmin tafxiluhu bil xusi bi ne ne walla nga jël dara loo xam ne lii doonut alxuraan nga teg ko ci kaw alxuraanul karim moo xam téere xam-xam bu mu mën a doon la wax ne loolu mayuñu kenn mu def ko ne ne tamit leneen lu mu doon lu dul alxuraanul karim moo xam ay këyit la moo xam ay bant la moo xam lu mu mën a doon rek kenn waroo ko rek ci kaw alxuraanul karim aw xayriha wa maddu rijlayni lahu kaza taalluqun fa jaanib kullahu sëriñ sëriñu nee na it ak ngay tàll say tànk sax say tànk ngay toog tàllal ko jëmale ko ci alxuraan karim sax nee na maanaam bul ko def nee na it eh, jël say tànk di ko aj ci alxuraan woon di ko ca tegit bul ko def kon jéem lii lañu sëñ bi digal ci alxuraanul karim ñu war koo sàmm tey moom mooy ci tënkal laaj bi daal mooy alxuraanul karim dara waratu warut a tege ci ko am moom moo war a féete kaw lépp kon nañu ko jàppe noonu ca jéem caa góorgóorlu beneen laajam bi ci topp te mooy bi mujj ci laaj yi tey mooy day laaj raddu salaam asna a xutbatil jumaati ki nga xam ne kii dafa ñëw ci jullik ajjuma gi dugg ci jumaa ji fekk imaam di xutba ñu nuyu ko ne moom nan lay def maanaam bu dee ni da ko nuyu ci kàddu wax ko nuyoo ba ndax da koy delloo nuyoo ba walla bu ko joxee loxo da koy eh, jox loxo comme ni mu ko joxee loxo bu ko defee liñ koy wax ci loolu mooy assalaamu waqtal xutbati xayru mashruin ki nga xam ne kii dafa ñëw fekk imaam di xutba muy nuyoo nga xam ne def na la loo xam ne lay wóote nag sharia maanaam mayuñu ko ko ku ñëw ci jumaa yi fekk imam di xutba danga war a fexe nga am foo toog rek waaye waroo fa am nekk di nuyoo walla ngay def dara lu toog déglu waaye na nag wa ida sallama alayka ahadun fala tarudda alayhi illa bil ishaara yow mi toog nag nit ñëw ne ne su la nuyoo soo koy fay bul ko fay lu maanaam nga junj ko won ko ne ko maanaam yëg naa ni bi delloo naa la ko maanaam nga junj ko ko maanaam junj ko ko ci sa bopp wala nga junj ko ci kër ci say loxo waaye ne ne euh, bul ko euh, fay bu dee danaa wax asalaamaaleykum bul ko ko delloo ci di ko ko waxaat wa iza madda ilayka yadahu tamuddu yadaka ilayhi wala tatakallaw bi shay ne ne itam bu la joxee loxo moom mën nga koo jox sa loxo waaye daal na góor góorlu ba jéem nuyu na la daal bu dee ni ay wax la moom bul ko ko delloo da koy jënj tàllal ko sa loxo wala sa ko sa bopp waaye bu la loxo itam jox ko sa loxo waaye bul ca teg genn kàddu foofu daal dañuy bëgg nga ne fi cell bañ wax dara ndax ne ne leneen loo fi wax rek ci foofu imam bi xutbaam mooy Euh, wàññi nga sab yoon maanaam def nga loo xam ne lii dañ la ko aaye bu yàqul sa julli ga it maanaam day wàññi sab yoon ndax ni ko yonent bi sallallahu alayhi ne bu imaam di xutba nga dégg nit ki wax nga ne ko diglul fekk danga nga ko yéene bi yool sax yow xamal ne yow wàññi nga sab yool moom yow kon loolu daal mooy li nga xam ne lii ci wàllu googu euh, mën nañ ko cee jàpp mooy boo koy delloo nuyoo dem du doon ay wax waaye nag ab junj lay doon bu dee loxo la it nga jox ko loxo rek da bañ a wax kon yal na yàlla doole jàppale bi jëy Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wasalaamaaleykum wa